Lord ci sunu borom ñu koy fàttalante ndax fàttalante yàlla ak ndigalam yi ak teem yi nee na dina jëriñ ab jullit dina dellu jullit ci borom maa ngi seede ne amul benn wa taala may seede tey dëggal ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy daw li mu tànn yónni mu génn leen ci lëlami bokkaale yóbbu leen yàlla yàlla doon na xiiwal ci moom ak mboolem saxaabaam ya ak képp koo xam ne yaa ngi xëy di gëstu yoon yi jaaroon ilaa yawmi diin daana wax ne képp koo xam ne imaam mi ngi xutba bisu àjjuma gane gi nga dem la déglu nee na feeñal nga càggal te képp koo xam ne feeñal nga càggal te suñu maam ginnaaw loolu jaamu yàlla yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali di ko dégg di leen dégg ñu ragal yàlla te jaamu te xam ne mboolem mbokkum jullitam li ci gën mooy mu dégg ko ragal yàlla te jaamu te xam ne moo ñuy tax a fii moo ñuy mën tax a mucc tamit fi ñu dañu bàyyi xel bis bi nga xam ne mi ngi ñëw ci sunu kanam te kenn ci ñun mënta muus ak ay yeewu ba mucc ci bis boobu nga xam dinañu summi dinañu sang dinañu sang sol ñu ci pax mu xat bàyyi ñu fa ak sunuy jëf lu ko waaye jëf ci wiiw duñ ko fekk ñu dégg lu may jëf bi safaan di nga ko fa fekk nga rëcc ko ñaan yàlla sa borom mu yott sa diggante jëf ji lu gën a sori diggante penku ak sawu te rëcc bi jëriñ foofu ñaan bi fa jëriñ bis na boo xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi ngi ñu koy bàyyi loo xel nee na tallaahi laysa yanfau saxsaxada inda xululi ramsihi xayrul huda nee na war naa ci màgg suñu borom bi nit ki su duggee bàmbel lu mu fa jiital lu mu fa jiital ndax jëf te dina ko fa lajal ba xam fu mu jëmam moom nañ bàyyi xel bis boobu waajal nan lañ koy waajal mooy tënku ci ndigal sunu borom yi mooy te tere yi ginnaaw loolu jaamu yàlla yi xutba ba weesu ñu ngi doon ci dee ak sukkuraat ne ni mu metti nga xam ni am na ci nit yàlla ci koo xam ne nee na moom sukkuraatu ndee mi ngi mel ni koo xam ne dañ koy baxal ci cin juróom-ñaar fukki yoon saa yu waree ñu dugalaat bax nee na sukkuraatu ndee mu gën a mel noonu sukkuraatu ndee kenn mënu koo misaal doomu aadama ni metti ñu wax ni nit ki war na ko bàyyi xel biñ ko waxtaanee ci àjjuma ji passé mu jeexantal ci lu bëree bëri ci jullit bi doon jullee fii ba ñenn ñi egg ci ni ñoom sañ sama tur sax dina jaral daal ñu dem ci àll ba jaamu ji yàlla bàyyi leen féete ji jaamu yàlla am ñu dem ba wax ni ñoom dem xalaat dee ak souffrance dee tax na mënuñoo am yaram ak wax yu bëree bëri yoo xam ne nañ ma ko ndax jeexantal xut ba boobu jeexantal ci ñoom ma bëgg a leeral tuuti ci ñoom bi ci njëkk mooy lañ xam ni liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe ci jaamu yàlla nit ki su neena waaye la dee tegtalewul ne da ngay génn dem te àll ba bàyyi li nga doon def dem di féete foofu def sa néeg di jaamu yàlla déedéet liggéey bokk na ci jaamu yàlla yi gën a kawe ginnaaw bu sa jaamu yàlla yi farata yi jóg jot jot jot jeex jàlle yàlla mi ngi ko wax ci sóoratu jumaa nga xam ne ci la da nga ne ci ñun farataale ci ñun ak jullit àjjuma nee na fa isaa qudiyati salaatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah nee na saa yu ngeen sëlmalee jumaa na ngeen jug tasaaroo ci kaw suuf dem liggéey wuti ci ngëneelu suñu borom su ngeen ko defee da bàyyi xel yàlla seen borom ci lépp lu ngeen di yëngatu dina leen ci defal barke nit yàlla yi nee nañ képp koo xam ne ginnaaw julli jumaa da ngaa dem ci am yàlla dina la ko barkeelal juróom-ñaar fukki ne su doon waxtu ginnaaw julli julli àjjuma kon ñu xam ne noonu la kawee liggéey ginnaaw ginnaaw jaam yàlla su liggéey yi amul kenn koo xam ne xëyoon te tuddoo liggéey ñëpp liggéey dañ koo boole ci seen faratay diine nga gis foofu tamit yàlla wax ci wax bu am solo mooy dafa wax ni nañu bàyyi come biha fi sabilillah Seydina Omar radiyallahu anhu dafay wax ni moom day ñaan yàlla bis bu faatu ñëwoon na ko fekk fu muy liggéey mu faatu moo ko gën a lu fekk ko ci toolu xare ba muy jihaad fi sabilillah ak jihaad fi sabilillah ni mu kawee nga xam ne yonent bi nee na benn bis bu nit taxaw fi sabilillah jihaad ko moo gën àdduna ak ci biiram biñ laajee Seydina Omar dane waaw ndax yàlla suñu borom bi muy wax liggéey dafa jiital liggéey ci ci ci ci jihaad wa fil ardi yabtaxuuna min fadlillaahi lañ njëkk a wax dañu julli di ñaari pàcc lañ leen xaaj xaaj bu njëkk ba ñu ngay liggéey ñetti des ñu ngi jihaad mu ne comme yàlla nag liggéey la jiital di jihaad kon ma ne damay ñaan yàlla su may jël mu fekk ma ci may liggéey moo ma gën a mu jël ma fekk may may jihaad nañ xam ni am na ci bàkkaar yu yonent bi nee na bàkkaar yoo xam ni dara dama ko dindi lu dul ñàkk rek ma di liggéey di ñàkk muy ànd ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis benn ndaw ci jumaa ji muy mu bari lu ko fay gis muy faral di julli dinaa fi yonent bi laaj ko ko yow kan moo lay dundal ba waxtu liggéey li cëpp dana def da koy julli mun ko sama benn frère moo may jox li may lekk ba tax moo tax du ma liggéey mun ko sa frère boobu lay jox loo lekk kooku moo la gën a jaamu yàlla nga gis ne suñu farata julli farata leneen loo def dem liggéey moo ko gën a doon farata daan na wax ni nit lépp lu gën a tey ci moom gën a rafet ci moom ñax ñaxam yonent yàlla daawuda yonent yàlla daawuda yàlla da koo jox nguur jox ko ak yonent benn bis mu génn di te boppam teseeg benn nit laaj ko ne ko lan mooy sa xalaat ci buur bani israil bi fekk mi ngi mi ngi maskawu di laaj boppam ndekete ki muy waxal tamit malaayika la kooku ne ko buur bi de mbooleem buur yi mu a am ci àdduna moo ci gën benn sikk rek moo feat mun ko ban sikk la mun ko dudul dunde am ñàkkam trésor public lay dunde loolu rek moo tax moo ko teye man a doon waaye nag su doon dundee ñàkkam kenn ko gën ci lay jeex yonent yàlla daaw da ñaan yàlla mu may ko métier mu doon dëgg di defar ay mbubbi koŋ di ko jaay moo tax yonent bi ne kenn lépp lu gën sa ñàkk bu loxo yonent yàlla eh, yonent yàlla daaw da ci ñàkk boppam da daan dundee noonu nga xam ne ni lañu yonent bi xiire ci liggéey ne lañu moytuloo ñuy laaj ndax xam ne ci liggéey rek ci la jullit bi di te di sàmme diine ci lay sàmme ngorom ci lay sàmme sàmme sàmme karaamam moo tax yeneen bi daan ñu ceeb ñuy liggéey wante mu ñuy tere tamit ñuy laaj daan la wax ni nit du denc di laaj ñu ba yow mal xiyaam suy denc di dot wala yàpp yàpp kanam dañ koy siddi suy suy suy denc def rek laaj bu lu jara jara mooy dul nee na képp koo xam ne yaa ngi laaj te la ngay laaj dëgg dëgg dox daa laaj nee mi ngi mel ne kuy laaj ay xal su la neexee bari lan su la neexee tuutal loolu kon saxaaba yi ridwanullahi alayhim xadis bi demoon na ba ci ñoom am na ci ñoo xam ne seen yar bi ñuy dàqe seen fas sax sama dee buñ ko laaj kenn ndax dañ bañ a dugg ci ñu ma wàcc jëloon seen bopp kon ñu xam ni bokk na ci màtt bi li gën a kawe di ko yéeg mooy liggéey fi sabilillah liggéey fi yàlla la yonent bi nee na bépp jaaykat boo xam ne jënd nga ci bis jaayawaat ci prix bis bi yàlla dina la yéegal ca màtt ba suhadaa loolu li ma bañ mooy nga jënd tey di xaar ba marchandise bi yéeg nga doog koo jaay wante koo xam ne sa marchandise bis ngay jaay nee na la leer ni te loolu waroo te naxoo ci nit ñi yaa ngi am dara yéegu daal ci xaar ñu bàyyi ko xel bu baax suñ mbokki commerçant yi nag ñu jéggal ma dina bari suñu yokkee ñu yokk wante suñu wàññee ñu ñu xaar loolu tamit du maam su fekkee suñu yokkee ñu nga yokk suñu wàññee wàññi loolu mooy liggéey boo ne lislaam ko nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ni képp koo xam ne dem nga ci buntu kër wala buntu borom alal dafa toroxlu ndax bëgg mu jox la nee na sa diine suñ ko xaajee ñetti xaaj ñaar nga ñaar yëpp benn rek nga des te léegi mënut a tax ñu mën a am suñu suñu bopp mën a am suñu liberté lu dul ñu mën koo liggéey kon nañ xam ne jaamu yàlla gi bokk na ci li ci gën a kawe nit ki di liggéey te sellal liggéey su ko sellalee rek ak jaamu yàlla la boo xam ne dañ koy bindal bu yàlla beneen mbir mi ci def mooy taraayu méttiitu dee suquraatus dee tegtiwul tegtalewul ni yàlla dafay ay jaamam a moo ko tax ci jur mu jóg ci jullit benn jullit ay bàkkaar suñ borom di ko setal ci bàkkaar yooyu ngir fu duggee bàmmeel mu jéggal ko loolu moo tax muy taral ci moom suquraatus dee wala muy doon koo xam ne da koy yéene martaba moo xam ne mënu koo jëf ci dundam su ko defee mu taral ci moom suquraatus dee ba su faatoo mu yëkkati a loolu nag tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme moo gën ci jaamu yàlla yi ci gën a kawe màtt ba ëllëg yow ak xiyaam moo tax moo ci gënoon a mel ci sukkuraatu faas leer bi ci dama roy waay la moo tax lépp luy dal doomu aadama yàlla koy jaarale ci moom ba ëllëg comme dal doo ko am lay soo too ku ñàkk ba bëgg a saalit mun la xool yonent yàlla ma xool moo la gën fuuf te daana am weer ba ñetti weer ba jëm ñaari weer ba ñetti weer këram jënd fa tàkk ndox rek ak tàndarma lañ daa dund nga am alal ba sa alal nar laa mun na xoolal yonent yàlla Muhammad nit ñëw ne jiw xul fekk mu fees dell ak ay gaal mun ko yaa rasulallah kan moom moom gàtt yi yaa Muhammad mun ko yaa ko moom a ji dafa ne yonent bi dafay dafay mokke dafay kafak moom mun ko war naa ci yàlla may naa ko dafay yem rek ci métti sukkuraat dee ak dee rek kon mbir mu yomb semb wante wallahi lazi laa ilaaha illaa lu ñëw ginnaaw dee moo gën a métti dee bàmmeel ak rendement yam bàmmeel ak ay najam bàmmeel ak ay jiitam bàmmeel ak munkar ak nakiir ñaari jaari yàlla yoo nga xam ne kenn ki dafa ñaan bañ tudde ko mun bañ tudde ko mun kenn ki ñaan boobu ko a xam kenn bañ tudde ko nakiir kenn boobu koo xam Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mi ngi wax ci Mawaahibul Quddus ni ñoom ñaar amul lu yàlla bind lu leen ragal ku dul yàlla seen borom bi leen bind ragal nga leen nee na su daam bu duggee ci biir na dañuy mel ni ñuy xotti suuf su ñuy ñëw nee na seen bët yi mi wax nee day mel ni dënn koy daal suñ ñëwee suñ jubee néew bi day génn bëri bëgg a jug du toogal gis nga bàmmeel moo gën moo gën a tar fuuf fuuf fuuf dee ak sa place bi ngeen ngeen si wante su fekkoon lépp di yem rek te bàmmeel ak ak ak xataayam ak lëndamaayam ak munkiram ak nakiram su boobaa sax mu ne alhamdulillah wante wallahi la ilaha illallah li gën a ñëw ginnaaw lépp bu gën a tar dana gën te garaaw bis bi ñuy taxaw ci kanamu yàlla suñu borom ñu ànd bis boobu tax na góor yàlla yi ñi ma wuñoo nelaw guddi ba yàggu ñi ma wuñoo bis boobu bis boobu nga xam ne yàlla nee na tazhalu kullu murdi'atin amma ardaat yaay dina jël doomam sànni ko wan ko ginnaaw ni ko tëru na di nga gis jigéen ju nekk ci ëmb tiit bi am doom ci bis boobu nit di ko léegi daal di daal daal di biñ jàmbax tiit ci bis boobu nit ñi mel nañu màndi di jay jay yi kenn xamul fu nga fuñ jëm yàlla ne wa maa hum bi sukaar màndi wuñ te bëggalum bis moo tax moo tax nag waa ji bis boobu xam ne ñuy ba mu mucc ci bis boobu yi bàyyi tere jaamu yàlla yi yàlla ku bëri yéen mën a ci bi moo tax def na ñaari mbir yoo xam ne day wàññi bu ci nekk méttitu sukuraatus dee lépp koo xam ne bëgg nga soo tolloo ci ci yow nee na ñaari mbir yi yoo xam ne soo ko defee mu wàññi bi ci def bi ci njëkk mooy dooleel doom bi teral ay wër doom bi teral waajuram du sonn mukk ci sukuraatus dee lu dul ma la wax màgg ko yàlla bëgg yéegale te mu leer ko ni jëfu ko ci yóbbu te sa booba doon ko jàmbat dina ko mën a muñaan beneen bi ci des mooy koo xam ne dafay jokk ak mbokkam kon faw moom itam su trace ndeem yàlla dina ko oyofal jëlee leen ci wax yi wax yi mag yu baax ni ci saadi bokk ci sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xam ne bëgg nga yàlla oyofalal la su trace dee nee na da ngay tëral sa ñaari waajur nee na wala ngay jokk sa ak mbokk soo ko defee na la nee na doo ñàkk mukk ci àdduna doo ñàkk mukk ci kaw foofu ak mooy jur ak bu rëy la bu diis la ak yoo xam ni yàlla du ko baal kenn muy dem ak moom Muaaz ibn Jabal mi ngi ñuy nekk li benn xadis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni doom di teral ay waajuram lu ko neex na def du dugg sawar mukk wante nee na doom di ñàkk teggin ay waajuram di leen jëppi di leen di leen xas di leen gëpp nee na lu ko neex na def du dugg àjjana mukk Muaaz ibn Jabal moo tuddee solo xadis bii mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi nee na saa yu waajur gërëmee yàlla gërëm wante saa yu ya waajur xalabee yàlla xalab ne la leen ne saa yu lay sa waajur meree yàlla suñu borom mere la ba keroog muy gërëm su gërëmee yàlla gërëm kon nag xam ne loolu lu rëy la lu xel nit ki war a bàyyi da yàlla egg ci fonk ba bi mu tuddee tawxiid lim ci teg mooy rafetal jëm ci moom mu ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaah wa bil waalidayni ihsaana yàlla nee na maa dogal farataal man jaamu man rek maa ko jëme man yàlla wante nee rafetal bi ci njëkk mooy si ñaari koy dugg na nga rafetal jëm ci ñoom ci mboolem fa soo rafetal yi rafetal waajur moo jiitu sa soxna bala ngaa rafetal ci sa soxna na sa waajur jiitu sonk gi nga war a fonk sa waajur moo ëpp gi nga war a fonk say doom moo war a fonk ëpp gi ngay fonk say xarit ba ci sa moo ëpp gi nga ko war a na xale ci bëri xamuñu loolu bëri nañu ko ci taxaw ci gënal sëriñ ni ko yaa ma gënal sama day gënal ma sama baay wallaahi la fii laa ilaaha illaa hu ku ko def ci suñu waajur jéggal la doo tax mu baax naka laa doo tax mu baax naka laa te loolu lu wér la yonent bi wax ko alxuraan wax ko bala ngaa teral sëriñ teral la sa ñaari waajur bala ngaa teral soxna teral la sa ñaari waajur te xale yi léegi ñu sàggane waajur yi jëm ci sëriñ si ñu ci bare bare bare am na ci ñoo xam ne su ñuy nuyu seen sëriñ ñaari loxo lañ ko jox sukkal balaa moom su ñuy nuyu seen bàyyi benn loxo lañ ko jox wala ñu xool fële yëkkati ko loolu du diine du ngor du dara ñàkk xam bu mag a mag la ku ci nekk na nga ko bàyyi te xam ne waajur yi yemuñu kenn tey koo taxaw ni ko yaa ma gënal seen sama ñaari waajur xanaa tey la wante ba nga tolloo ci ci ci defar ak a jën ak a teg ak a ak a faj gisoo woon dul si ñaari waajur moo tax ñoom jël teral leen moo jiitu keneen koo mën a teral soo leen tëralul keneen koo teral doo fa am benn traag te du la jëriñ benn jaamu yàlla yi yeneen jiital sa ñaari wëñ saa yoo ko waxee yàlla mere la saa yoo ko waxee malaaka yi mere la kon wax bu rafet bu tey bu ànd dal bu ànd ak nga war a wax sa ñaari wëñ wante nee na na nga wàcce ñoom nee na nga wàcce sa di leen ñaari wëju yi nit ma yërëme woon bi ma doonee xale noonu lañu yàlla sant ñu jëflante ko ak suñuy wëju benn waaye dafa ñëw ci abi sayyidul xudari samay ñaari waajur dem mboolem lu ñu ma doon defal bi ma doonee ndaw tey jii maa ngi leen koy defal lépp maa leen koy defal ndax kon jox naa leen seen xaq ji war ci ñoom fay naa leen Abu Saïd ni ko fayoo leen ndax ñoom loola bañ la koy defal ñu ngi la koy defal dala ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wér gu yaram dala ñaanal nga gën ci mboolem kaw suuf yow nag yaa ngi leen koy defal da yàggal ci bis bu ngay dem robi de kon fayoo leen lu lu toll ne sax benn nooy bañ ba bañ la amee jaam yàlla nañ xam ni baax ci say waajur moo jiitu jihaad fi sabilillah jihaad fi sabilillah bi ñu leen doon wax li muy baax baax teral si wóor ko gën Ibnu Omar nee na benn xale dafa ñëw ci yonent bi ne ko damaa bëgg a ànd ak jihaad ndax li ci liggéey ci tuyaaba mu am nee na mun ko ndax sa ñaari wóor ñu ngi dund mun ko am mun ko dellu ngi jihaad ci ñoom ñaar foofu mooy jihaad a ma kon foofu bàyyee leer na amul jihaad dem بان خامني ترى الوجود موم رك موي تخ نيت كي ام لي في الدنيا وفي الاخره لو ما جيبو جينا نقري ديت غا جين كو مون جين كو ترا سوتو يا بو جيني سيدنا عمر بن الخطاب دا عند الصحابه يي دم مكه با اكسيتي النفور مو دال لين فور وي دي بما دوني دا فلا دان سامال سما باي كلي نو خور وي تلا دان تخال لا سما ياخ سما باي دا نختر وون دار دما دان گد دي مو دور تاي دي گيس نين دما يالا def tay mbolam gi ma nekkoon tey jii yàlla jox ma ba ma am kàttan gi yor yar bi dóore di diglee ka tere tey jii ci baytul maalul muslimin lu ma neex jël tey kenn féetu ma ko dul te fii laa doon sàmmale sama baay dafa taxane la sama yaay ñu naxtal woon deret loolu Omar maa saa taqulu lillah Omar lan ngay wax yàlla sa borom ci teraanga ju rëy ji mun a teral borom xam-xam yi dañuy xikma ko teral mooy dul moo wax loo Omar wax ko nit loolu am na ko dig teral bu mu teraloon ay waajur jaamu yàlla yi nañ xam ne teral moom rek te doom di amee ñu bëgg àdduna ak laaxira benn xale bi ne ko dama amee am sama papa bëgg jël sama alal lu ko neex ma ne kii laaj xalaat yaa yonent bi ne ko yaa wax sa na jël tudd la taal tey nag bari na ñoo xam dañu naan saraxal sa bàyyi nangam saraxal sa na ci ñoo xam seen seen soxna sax leen di wax la ñuy jox seen bàyyi seen yaay ñàkk fulla ak dellu ginnaaw mënta weesu loolu kuy roy da ngay roy bu baax jaamu yàlla yi da ngeen xam ne doomu teral looy juróom ni yàlla ubbil du fukk mukk buntu yiw lu dul yàlla dina ko ubbil buntu boobu amul ñaan du muy ñaan lu dul yàlla dina ko nangul yonent bi nee na woon Omar bin Xattaab ak Ali waa Yaman dinañ ñëw délégation Yaman dinañ ñëw am na ci ku ca set xol mbéy ku ñuy wax woy seen xale yi moo di gën a set set xol ku ko ca gis ñaan loo ko yàlla ndax lu mu ñaan yàlla nangul ndax dafa amoon yaay te talal yaayam moo tax lu mu ñaan yàlla yàlla nangul law aqsama ala allahi la abara kum jéggalul yàlla jéggal kon tëral yaayoo rek mooy tax sa ñaan mu doom ji tëral boo juróom lu mu ñaan yàlla wax na moom Bilaal Xawaas bi ngi wax ni benn bis dafa dafa gëlëm nee na am ko feeñ di ko tegtal yoon muy waxtaan ak moom nee na mu mel ne bu ilham ne ko xadir la xadir am na ñu ne yonent am na ñu ne saale nee na mu laaj ko nan laa ba gis ñëw yaay kat nee na mun ko mën la xadir mun ko fan laa jaar ba mën laa gis mun ko tëral bi ngay tëral say wóyul moo tax yàlla boole maa loolu kon doom bi tëral bu juróom fu mu gën a fu mu nekk ci tag-tag yàlla dina ko boole ko bu génne tag-tag yooyu wante nañ moytu bu baax a baax ñàkk tëral bu ndax ñàkk tëral bu dina indi ni torox ci àdduna indil ko torox ci àllaaxira ni nga xam ne tëral waajur yonent bi nee na mooy bunt bi gën a gaaw ci dugg àjjana nee na buntu tëral su waajur moo ci gën a gaaw moo tax yonent bi nee na dafa dem àjjana di ko visité dégg benn baax alxuraan bu neex nee na mu laaj kooku fu mu doon nee na ñu ko xaaris na na amaan na nee na ma ne loolu rek la mën a demee xaaral su mu naxmaan li mu daan tëralee góor ñoom àjjana rek moo doon gërëm ma nga ca firdaws si gën a kawe wante mooy pour ñàkk tëral say góor ñi nee na ñett ngi nii ñoo xam ne yàlla xaraamal na ci ñoom àjjana bokk na ci gën tudd doom ñoo xam ne dafay gëdd ay góor ñoom day ñàkk teggin ay góor ñoom looloo tax saxaaba yi ak ñu baax ñi liñ gënoon ragal ci kaw suuf mooy cof seen i wóytu dem na ba Ibnu Abbas ni soo Seynul Abidin sëtu yonent bi ku ragaloon yàlla la ku bëggoon booy juróom la parce que musta nu boolee kanoog yaayam mois d' avril ñi wax poisson d' avril te nga xam ne ñi dem nañ ba dagalal kooku dul dëkk ma di leen xamal ne yonent bi dañ leen jullit du nekk mën nañ ko war tuumaal ba des ñaari bi nee na jullit lu dul dëgg na bis boo waxee lu ñoom bu tax mukk ñu egsi ci ñun wax lu dul dëgg du dagal ci wenn weer du ñàkk yeneen xutba dinañ ci wax ci jokk mbokk yàlla nañ yàlla boole ci doom yi nga xam ne dañuy tëral seeni i waajur leen jiital ci doom yi nga xam ni danañ jokk ak mbokk yàlla yàlla yërëm mooy jiiti yërëm sunu mbokk sunu rak Idrissa Diaw ñu ngi koy jaara kàcce di ko jaara daw ñëpp bis ni tey mi ngi ci kaw suuf tay di mi ngi ci biir suuf doon ci ndaw yi ñëw jël nañ seen cër tey wax bu nekk nañ koy xaar xam ne wax bu nekk naa ñëw yàlla yàlla yërëm ko yërëm mboolem jullit bu mu ko fekk ak dox ko fekk yàlla wàcc jàmm ci suñu réew ak réew jullit yëpp waxtaan danaa ko la baax ko dafa dina ko lisaala ila min alxayraat yàlla waaw waslu bina nahji rushdin wa fila zalala